xam naa lan mooy sa aajo. tey sa kay la. xam naa lan mooy sa tànk. dangaa bëgg ma defal la kànnaar. kànnaar yaa bëgg yi bëgg di di tëj xëy di nga déglu i i bu nga ne may tëj jigéen ñi dafay tëj jigéen ñi ma yi may def yu saay daal. Hmm? nee na yow munoo am bu mag. eh day duy wóor na yaay waxu dëgg waxoon naa day fen yi man keneen bu ngeen yaa bëgg boo mën naa tëj ku nekk. yow xanaa da nga dof. Eh. xanaa xamoo man may kan. wax naa ngay wax naa ngay feppee. da nga fi di wax lu neex boo xefee doo ñibbi. eh eh bàyyi ngay wax. waaw booy ñibbi da ngay raam. yow gars waaye feppee feppee non sa baa yi lii sax. yàlla. yow est-ce que yow man ma defaral kànnaag bi sax man nga diir. ii day ñëw si day ñëw man damay fay xaalis bi damay fay ba ak yéen si man juróom-ñetti dërëm dong ngay defaree kànnaag nga ñëw fii sa aaja faju na say morom dong ñoo fi ñëw seen aaja di faju man ku ma xamul dégg nga ma. am ñu fi ñëw dafay kànnaar pour def saay hmm. sax. fii. sax mën naa ko defar. tey sa kay nax ku dee mën nga ko dégg mën nga ko dimbali ba du dee. déggoo ma de bu waay bëgg. mu neex yàlla mu neexul yàlla dafay am man maa ko wax. tey sa nax mën nga sëriñ toj ko ku ma xamul dégg nga ma tooga sa aajo dana faj ni ko bëggee. boobu ngand bi. déedéet. yii bu tuuti bi yii tëjee ay ndaw yi ngay tëb yu saa yi ñu tëjee. bii pour gune yi ndaw yi. eh ii bu muy tuuti yi dañuy tëj. bii mooy pour ñagamaar yi. Eh, yi. tey sa la ndax. bii nag. pour may yi pour may mooy pour jeeg

ni ñu koy gisee nii jigéen boo soxla sa àdduna dañ koy ubbi di koy woo juróom-ñaari yoon ngay woo turam woote bu nekk woote bu nekk ak tufi fii nii ba muy juróom-ñaari yoon nga tëj sa kànnaar bu mu dëgër rocc denc sa caabi dina ma wuy si duma juróomi minute mu wuy si est-ce que dégg nga ni ma la waxee. dégg naa dégg hmm. ma xamul ma. dégg kay yi kay yi kay yi yi yi yi yee jafe dégg nga. ayam jàpp ayam jàpp. dama bëgg mu ngi jàpp sa kër nga doog kaw woo boo ko ooyee fii si man ngay eh, ma. man nga ma xamul dégg du nax man ku ne du ma ko liggéeyal sax dama xamul lu ma koy def fii ay pëgg fuuta sax dañ ma fi fekk si. waaw. am na benn meew bi naan awa jàll. jaaykatu mbu. mais eh, da nga gànnaay. dama koy may saafa mu koy siw si palaasam. ak beneen meew bi ñu naan Sadio Ba. da hmm. dama koy jox ay saafara mu koy siw fi muy jaayee. tey man ku ma xamul dégg ma. waaw. boo bëggee mën naa def nga tàkk yow ba faw ba abadan. ma eh, eh, eh, man bu ma taajee bu ma taajee. déedéet da ngay am addan gi si biir mais yuutu melentaan boo ko indee ma defal loolu jugal dem. yii yow sama papa sax ni ko yiteel. jugal. ah merci ah. sampai di din lang, nga kay ini kaya kaya na ako. Ako kaya mau dumagin eh. Apa mo yung film mga kami eh. Kaya mo, hindi na yung natigot. Ah, kaya ako hindi. Ano yung kaya mo kaya series. Alhamdulillah naman. Papa? Pwede mo rin kaya kayo ligay. Gatopatid ko yung takawar rin. Papa? ya ito yung kita gina ya lagi. yow is yow yow yow is yow maa la jur au vrai chance tey moom maa la jur yow. yow mooy yan. yow is maa la jur. waaw muy yan. damaa xam ni damaa xam ni yow yow yow benn baa dina nga am. man xaw ma ko. yow yow xam ne say fan mat mais ma laaj sa tur yaay dëgg-dëgg na la. waaw ndeysaan man kon xëy yaa de. na fenn yow ku ne la jabar yi dafa doom nga naan xale la. waaw sama yaay dëgg-dëgg naa ya. yan ba sa moromaa ah. kon yow mosoo xam ne sa yan day war a jóge tudd yow. day war a jóge tudd. gàncax gàncax yi day war a jóge nga nekk bi gàncax gàncax yi wax waaw yegg xoy fii kenn. Ndeye Waye Diop Ndeye Waye Diop Ndeye Waye Diop Ndeye Waye Diop Ndeye Waye Diop Ndeye Waye Diop Ndeye Waye Diop. sëy bi da koy nax. damaa yaakaar ne dinañ waay. waaw papa est-ce que yaa ngi wuyu. wuyu fi ma sànq. yaay. naam. Ndeye Wale Diop. eh. come on come on come sa yaay bi su ma baaxee Ndeye Wale de ko xarit de ko yaay. Ndeye Wale Diop. waaw. sama xarit bi yëpp si yow la nekk foo nekkoon. day jot a yéen ay ni mu tàngee. yow dama yow demoon te. ñeneen nga nekkoon. waaw demoon. yaa naka la. waaw. ay noos. ay gàttal fii yaay ma xooy ma xooy yaa. yaa loolu ne yow. tey sa kii nax xooy sama yaay tey bu doon bëggee baabu dee dee yaay mooy nga yaa ngi ah jóge ñëw toog fii ay. day ñaan te yaay yaay yaay yaay yaay yaay jàppal ma jàppal ma ne kii ba ca ba ca ba ca ba ca. yaa ngi wax takk na nga mel ni buntu préfecture muy bu la ma lal yow yow war yow yow sa ñàkk fayda weesul xale bi dina mën a téléphone ne ko téléphone yow lii lan la yow. Ndiaye kii bu bëggee leneen loolu loolu ma defal ko ko. lan de xëy na. waaw kii mooy bay. yow sa papa yow de. loolu jarul laaj. yow sa papa loolu jarul laaj. abali jarul laaj doomeram. yow yow war nga laaj ba sa yaay yow ko gënal. ko gënal fuuf. te li dëgg kii noonu laajte la man de day laajte ma yow moom maa ngi ko mën a gënal lay laajte. waaw waaw waaw ma ne ko moom. ah moom mën a gënal fuuf. xanaa kii bu ñu tëddul ba guddi. mu ne papa wàccal la bi may yéeg. day yéeg lu neex. xanaa wàccu nga. papa xanaa wàccu nga. vomi avomi yi nga. yooyu avomi yi. yii nganda nganda yi. yii amul yooyu de yii ngeen di nga. yii ba ma jàpp la kele yi ma jàpp sa bopp. kii ba tey daya. yii nganda nganda yi amul fii fii doy ma maay maay dogay maay def bi ma neex. maay dogay nga xam ne da ngay dugg boo waxee loolu. ah yow ay xam bëgg xamaa. yow yow yow war na jóg. yow nga ne kii bu ma la gën a lekk déggoo ma di jaay kañ loolu jarul nag waa àdduna yëpp laa koy noonu déggoo ma ma nee na bu guddee ba xaaja guddi suuf seen mu fëgg la nag ne la papa wàccal damay yëg day yëg force seen cooj kenn na ko ma de seen bi waxoon na ma ko nee na ma keneen wala jàpp yooyu laa koy jàpp yooyu tuddee tuyam tuyam juróom ñaar yooyu yëg woo tëjee yàpp yëg yoo ko wax ay kàddaa rek ay élargi lu nekk ngay yor yow di mag lay seen bi na ko ma de yi dafay ne kàddaa yi kii yi wax yàpp yap nga wax tuyame yoo ko wax yow yaa yàpp jox jox soo may tuur tey may ma jox sanna tey may ma jox sanna yi yaa yàpp yow sanna yi jee tey laa fay ma jox eh am kanal kanal rek eh papa ye papa ye papa ye ñoo yaa ye yaa wax sama papa de xoolal xoolal am kanal ba kanal rek ay papa ye papa ye doy papa am kanal ba doy papa ni mënu bàyyi ci yow eh doy ani ya loolu la ma kaan ya yow xam nga su ma xamoon tëj nga sa ya ngaa tëj ya di nga ya sanday bi yaa. yaa ya sanday yow. yaa tëj ya day yow. yaa tëj ya yow day yow. yaa bàyyi kii la yow yow yaa seet. yow kon jox ko kaan naa yaa yi jox ko kaan naa yaa nijaay man ma tal wax sax kii man maa ngi léegi loo ko gis di. yaa ngi mën a fen yow nga ne kii moom la gën a. yàlla te ne samay kàddu. kii man ma eh, eh, eh, hmm? la gën a def waay yow doo réglé sa baay. bu ah. ma si wax sax sa baay ma la gën a fuuf. yow mii mii di guddi di biir. yaa yaa ngi waay de yaa ngi waay de. waale la ak lan moo xew. da laa kii da kii da laa tëj tëjoo. kii da laa tëj bu yàgg. man li ma gën a jaaxal ci kaa bi mooy kii man fan war a jëlee sëriñ bu aaye bi boo ko jox kànnaar moo lay tëj muy jàpp lan la wax ci kànnaar bi. kànnaar bi nee eh, na ayam jaag ayam jaag yaa bëggoon defal kànnaar bu tëj ko. Eh, tideti anjak jomnya ya anjak anjak anjak anjak anjak jomnya ya itu dia ya, apa anjak ya? dia apa ya, me iga itu sih saya saya orang jadom lah dong itu saya saya i mereka kan ro sang hasawe nga lu ne yo ma xamal la la te ba xam te iya ñam ma man la gëna metti ci gaal kan, moy yow sa ñak gëm sa bop yow ma ya na aram jak metu aram jak metu aram jak méttiwul yo yow li mën nga am li nga bëgg sa sa sa gànnaar rek waaye nag ak gum sa bopp. day bañ day bañ day bañ day bañ. te yarum daal tu